jërë ngeen jëf mbokk internet M4 TV dal leen ak jàmm ci seen chaîne préférée ni ki tey nag ñu fas yéene waxtaanee làmb ànd ci ak ndaanaan boo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàll wi euh, bu ñu waxee loolu nag seen xel mën na dem ci ndaanaan yu bari waaye tey euh, per Max Mbergane la ñuy dalal euh, Max ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokk internet M4 TV. waa di la fay di sant yàlla bu baax julli ci yeneen tam bu tedd bi gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi. Euh, kontaan lool su ma juumul bi mooy ñaareel bi yoon ma ñëw fii di waxtaan di rafetlu ak seen liggéey liggéey bi am na solo ay ndaw yoo xam ne macha allah te man ndaw luy dóor waar moom dama koy naw di ñaan yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm pare nag ci tontu say laaj. Mm-hmm. incha allah dinañ ci am mbégte yi bu baax a baax ànd ak yow ci waxtaan bi eh, ndax wax naa ko léegi ci njëlbeen eh, sa xam-xam ci làmb eh, kenn dootu ko naa table waaye itam jaloore yi nga xamante ni def nga ko ci làmb ba nga ci duggee ba ni nga nekkee di encadré ay xale kenn dootul wax ni Père Max def fi dara ndax bëri na loo xamante ni làmb bu jagee bokk nga ci ñi nga xamante ñoom ñoo ko jagal waaye laataa ñuy dugg ci biir actualité làmb dafa am loo xamante ni moom moo dal ëxlu làmb muy Lac de du ñàkk ni dégg nga ko euh, bi nga xamante ne ma nga ca écurie ab tiis dal ci kawam euh, naka nga jàngatee mbir moomu. comme ni ko ñëpp jàngatee rek euh, di ko ñaanal rek yàlla sunu boroom génne ko ak mbooleem ku fa ne waxoon naa ko c'est juste natt yàlla da ko sàkk pour jaamam yi mais nañ ko nangu rek te ñaan yàlla teggi ko. fee moom ko fa sa añ ne rek di nga ko añi mais ñu ngi koy ñaanal mu dellusi si làmb ji soxla na ko njabootam soxla na ko mu continuer ay activité am euh, ñu ngi koy defal ay ket nag pour jàppale ko ndax xam nga li wolof di wax naan atte bor fay euh, même yoon loolu lay atte euh, ñu ngi ñaan rek lépp mat te su ma it yoon jàpp ci ndax su ma juumul c'est la première fois ñu doog ko arrêté ñu xam ne erreur la bu ko defee mu mën a continuer ak activité am mm-hmm. mais ñu ngi koy ñaanal daal mu génn ak mbooleem détenu politique bu fa ne ñu ngi lay ñaanal nga libre euh, fan yi ñu génn ñu woote woon ab euh, point de presse ngir soutenir ko euh, daanaka mbër yu bëri woon fa nemmeeku nañu itam seen absence absence yeneen écurie itam ñu bëri itam euh, xaw a ñaaw li li nu mel ba am a neex yëkkati ay kàddu ni yenn mbër yi euh, bu ñu ñëwul rek ñoom la neex te waroon nañoo ñëw jàppale la dëgg naka nga jàngatee yile kàddu. waaw noo xam nga ama neex dafa xër rek waaye nit mën naa bañ a ñëw waaye boo xaree xol ba la nga cay def mooy bëgg ñu bàyyi ko li am solo mooy kenn yéenewu ko ko te mbëri la daggee dafa am tur rek mais am nañ mbër yoo xam ne moo leen fare kaw am nañ ay problème ñi yëng ci biir ba léegi ñii génn nañ kon moo lay wan ne dafa xër nag ndax turam moo toll noonu mm-hmm. mais du ko ñëwul rek da ko yéenewul jàmm noonu da dew tëddeewul noonu euh, man wóor na ma ne ñëw ak ñëwul ñëpp seen xol ñëw na mais man nga am ci yeneen yitte yu la téyoon ba mënuloo ñëw mais heure bi mu jotee li ëpp ci nit ñi dañ doon laaj ñen ñoo fa ñëw ak nan la demee ndax liñ doon wit indi nañ fa somm bu am solo. kon moo lay wan ne buñ sañoon ñëpp ñëw. mënoo woote nag ñëpp ñëw waaw loolu kenn mënu ko am mais woote bi rafetlu nañ initiative bi te nag genn golo gudd na mooy loo ci laal borom yëg ko. am na solo wane nañu ne euh, jàpp nañ ko bokk ci ñun. Mm-hmm. li ko dal kenn yéenewu ko. Mm-hmm. Mm-hmm. alors ñu génn ci euh, ayu bés boo xamante ni c'était une très euh, une semaine très mouvementée maanaam làmb yi bëri woon na ci ni ki démb itam euh, ca stade ba itam amoon na làmb yu bëri yoo xamante ni aboon na fa ñu nemmeeku daanaka combat yi fa am yëpp ay grand combat la claf ma nga fa woon waaye itam le combat bi doxoon ci diggante Jackson ak Luc Rose gis nga la ca xew mu mel ni Jackson la mu xalaatoon démb mujj ta antu ci kanamu lagrose bi nga xamante ni peut-être expérience la ko daani ñu ci bari loolu la ñu wax. waaw xam nga comme ni nga ko waxee rek damay njëkkee rek ci phénomène bi nga xamante ne ni génn na ci làmb ji muy prince xale bu jar a bàyyi xel daje woon ak Oli Guènes Pikine nag ginnaaw raay banlieue bi yëpp di ko topp moo ni mbooloo mu bëree bëri mm-hmm. xale la bu jar a bàyyi xel mi ngi wane boppam. xam ñëw ci phénomène yooyu uh-huh. parce que bëri na ci ay phénomènes yoo xam ne dañuy uh-huh. drainer foule uh-huh. comme Siteu ba mu ciy toll na mu daan di ñëw da tënk journée bi waaw moo tax ma dalee foofu ay <laughs> euh, beneen bi mm-hmm. gis nañu ne njaga doole ñëwul ndax adversaire am dafa gaañu indi médical wala mu feebar muy garga deux mm-hmm. jox ko médecin wu CNG bi ñu valider ko woo adversaire am woo njaga doole ne ko sa adversaire daa gaañu mënul bëre sama problème rek mooy diggante caatu yoof ak gàmmu gëy lan moo tax gàmmu gëy ñëwul effectivement te am ñu ne daa feebaroon ñii ñu ne daa feebar dugal médical CNG nanguwu ko euh, loolu daal mooy suma problème te caatu yoof préparé waaw waaw préparé ñëw géew bi loolu nag dañ naa xool bugguma ci xuus mais xam naa ne daal am na faay fu mu amee. ndax gàmmu gay mhm. loola ma deux semaines ngi nii ma yëg ne dafa feebar mënul bëre. waaw ah, kon même pour nga protéger mbër mi bu dee noonu la demee pour nga protéger promoteur bi jaadu noo woon na ñu fexe ba médecin wu CNG bi valider ko comme li jàll njaga doole garga de au moins promoteur bi bañ a perte xaalisam mais caatu yof démb moom bi mu ñëw sax leer na ko ne combat am. xam nga loolu yenn fan si xanaa ko làmb nee na moom yëg ko woon ah non mën na ko yëg xam nga ko woon moom ku ne loolu lay wax rek mhm. mais dama ne man deux semaines yi nii mais bu mais li mën a tax moom mu toog déggagu ko comme même bu yëgee ne gaañu na loolu du tee mu préparé mhm. parce que sa ménager moo lay woo ne la tak directeur administratif u CNG woo na ma nee na sa adversaire daa gaañu su boobaa lay dogo waay mais dégg ci mbedd mi rek mënul tey caatu yof préparé mhm. foog mu préparé ñëw mais laaj naa Youssou Ndour mu ne ma daa feebaroon am na ñu ne daa dugal médical CNG nanguwu ko xam naa ne nag yooyu dina am beneen suivi. Mhm. fu ci toll rek ba xam ay sanction dina ci am nan mooy demee dana danaa la fexe wax nan la de nan la nan la mujjee. Mhm. ñu ñëw nag ci yeneen ñaari combat yi ci diggante ci caatu. Euh, yaraax mhm. caatu yaraax. Euh, combat bi ndaje ak Ndiaye boobu rek moo mënoon a indi problème ci calaf bi. ndax lan waaw ndax su daanoon su ko Ndiaye Tine daanoon. effectivement kee forfait na gàmmu koy day am 6 points. Mhm. Njaatin day am 6 points caatu Yaraax am 6 points. Mhm. mais da koo daan am 9 points. ba doon jàngat combat boobu euh, bien vrai que nag euh, am na solo li ngay développé mais euh, ñaari profil la profil yu doy waar la. waa ay ndaanaan la ñu Njaatin di mën a bëre mën a xeex. Mhm. mais caatu Yaraax mooy ki créé surprise bu jéggi dayoo. comme li la da guerre defoon ci calaafu deux mille. six deux mille non non deux mille deux mille deux xam nga 2006 2007. kalaaf ba benn poule la woon rek. effectivement mooy bu ñoom Balla Gaye déwé Ousmane Diop. Mm-hmm. Coly ak Mbaye Diouf. mais bi mu finaalu moom ak sos booba Yékini Junior moo doonoon favori Issa Pouye ne ca tafaatin Tine ne ca la dageer yoxo si ñëw daan ñëpp caatu yaraax bi muy lukkee ko defuñ ko woon favori mais combat bu mu bëree da ngay gis benn exploit bu muy wane. nit ñi ne song daan caatu yoof ñu ne mënul ne moo caatu yoof ñëpp dañ woon moo caatu yoof ko man c'est vrai que bett na ñu bari. njaay ñu ne woon combat bi day métti mais da ko dóor ku dàq ko ñu daw daje njaay di bëre mu sëq ca tànk ba chargé ko daw moom mu jaaxaan. lan moo nekkoon erreur u njaay tin. ci ah, er, er, erreur bi mooy même jëlee coup mi ngi bëre mais benn instant jekku na xëy na nag coup bu fekkee kawtewul benn instant xalab na ko ba mel ni ku koy wër ndomba moo caatu yaraax ma ko laajee sax ne na ma juum naa ci biir bëre bi mais que dafa yéex ba ma rectifié wu. xam nga làmb ndoxtu la boo juumee rek da ngay daanu da ngay gis ah, da ngay gis sew-sew yu ndaw mën naa tax nga ñàkk sa kombaa mais combat la boo xamante ne nii li ma bett ci caatu yaraax gis naa ndeke dafa man a xeex te bëri rek la doon def man nag loolu laa d'accord làmb da ngay nëbb sa bopp dañ doon dox song rek la man mais démb dafa xeex bëre wane waa beneen facette waaw mhm. ki muy dajeek mooy daj dëpp gi mooy dut saane moom it trois combats trois victoire mi ngi ci neuf ma laaj ko ne ko xam nga ki ngay finaalool ndax moom bi caatu yaraax bëree ba noppi dal na sama plateau dalal naa ko ne ko xam nga it ki daje mu ne ma bërëkkat la waaye waaye man après ama Sène laay pare su ma paree be booy dëkk Eumeu Sène yëpp kenn du ci bëreek Eumeu Sène te bëree ko man sama dënd laay samp loolu dama ko laaj ne ko yow yaa ngi waajal xalaaf bi naan booy dëkk Eumeu Sène nañ ma nañ ma xaar mu ne ma père su ma paree ci lii booy dëkk Eumeu Sène yëpp kenn dootu ci bëri Eumeu Sène te jaaroo ci man. Ah, ne nee na ndax euh, Modou Lo Franc mooy protégé moom mooy protéger. Eumeu Sène mooy protéger Eumeu kon moom mi ngi rassuré ne xalaaf bi da ko dafa war a daan ñëpp. Mhm. léegi nag caatu yaraax ne naa ko kenn nee na champion nga mais moom taxoo koo jóg mu ne ma père xam naa ne moom it mbër la. waaye nee naa loon ci calaf bi nga may xame kon moo lay wone combat la boo xamante ne nii final la bu am solo. Mm-hmm. moo naa am euh, le vingt juillet. Mm-hmm. ñu ngi koy waajal xam tête bi dox ci ama neex ak ñaa bu ndaw. xam naa ci ñëw le vingt mais. combat bu war a neex aussi. waa ñu ñëw ak ci daj dëpp gi. Mm-hmm. ci diggante Lac ak Jackson waxoon naa ko ci jàngat yi passé ma ne Jack Lac leen rek nga koy tiital blessure bi wala mu neew doole. mais boo amee doole mën naa xeex ñeme na neexu la daan. te mën naa bëri. te mën naa bëri moo tax démb ci biir bëre la daan Jackson Jackson dina am la ko naxari lool ndax dañoo xeex daw daje mu ku ne téye geño mu forcé Lac Rose dindil téye bi mu ko téye moom muy bëre mu forcé ko daan ko jël bu rëy. mais mais père boo taxawee ci bëre bi. Mm-hmm. Euh, dama gis Jackson ërtal euh, euh, Lagrose. dóor ko ñaari coup mu mel ni Lagrose dafa xaw a tërëf. non non Lagrose da ko dóor arrêt sax. Mhm. kee ñëw ñu daje xeex. mais bi mu ko chargé xam nga lag du ko ñuy topp ndax moom attaqué la xam moom tamit. ci la riposte ñu daw daje. mais bi mu dindee loxo bi. dafa dindi loxoom wan neen moo ko ëpp doole la la ko doon imposé dindi loxo la de guerre force loxo Lac du ko dindi force ba pare daw di ko bët. ba mu ko bëttee mu bañ mu di ko plaqué Lac Rose dafa rasu ba pare fàq ko moom ñu daanoo sax ba léegi comprendre hmm. dafa rasu ba pare fàq ko mu def quatre appuis daan ko jël bu rëy. donc lu doonoon erreur am démb ci ko erreur bi mooy euh, da ko xaw a jox benn cër bi. làmb booy yéeg da ngay respecter sa adversaire mais na ma dégg mu naan ko duñ bëri trois minutes soo ko defee mbër mu amee noonu expérience ba pare Lac ñoom Sa ay Siteu ñoo ñooy génération ay maasam lañ ñoom mu Ndoye hmm. Sa ñooñ ñu la war a bëreel ñoom Modou Lo Balla foofu lañ doon séentu Lac Rose mu am blessure looloo ko tardeel kooku bu dee ba marqué waa retouram bëre Coen si bëre bu metti Coen daan ko mu dellu si niil ak fils de Balla mu bu amaatee moom day bëre yow mais xelam defu ko ci yow day xalaat na fii du palaasam. Hmm. kooku booy bëre moom da nga ko war a jox cër loolu mooy erreur bi Jackson def mbër mu mag am expérience am lu ko rëcc ci làmb mu di ko dabuwaat booy bëri moom da ko war a respecté da nga ko war a jox cër dafa juum nag da ci am toujours ma ko day am loo xamante ni entraîneur yi loo ñoo la koy jàngal mais am na loo xam ne géew bi moo la koy jàngal géew bi géew bi da ngay entraîné say continuel dafa li nga ne noo garaaw lii lay def nga dem def loola daanu léeg nga ne risque dara loo xam ne warul daanu ca ne non man mënoon naa tey su ma guddi gi boo demee di tëdd loolu géew bi moo la koy jàngal da nga xam ne làmb fa la mais ku daanu rus te looy wax ba daanu jeex na beneen yoonati. Mhm. su boobaa booy bëreeti nga sedd ki ngay bëree. waaye côté préparation pour Jackson est-ce que amul loo xamante ni manqué na ci Jackson. non indi na doole buy daw sax da nga xam ne dafa mobile. Mhm. mais victoire yu bëri da lay naagaloo da ngay dem ba defee ne taxaw maa la man. ah fi mu tolloon nag bëri na. Ah, fi mu tolloon la fi mu tolloon la gëj. ndaanaan ay ndaanaan rek lay daan. day xeex day bëre. mais moom waroon naa xam ne ni mu def Pape ndooy waaw di xeex ak moom xeex bu métti dóor ko mu daanu di rakk ci Lac Rose. ba pare mu bëre sam di daanu. Mhm. bu ñëwee day rey boppam. du bëgg mukk ñaari defe di dugg ca kër ga. c'est vrai que Lac Rose aussi la. non c'est un eh, eh, c'est un grand champion. blessure bi amoon ci genou bi la ko rey yëpp foofu la jóge mhm. mais heure bi war waruñu woon sax Lac Rose warutoon na bëri ci niveau bi. heure bi ci kaw la waroon ne Lac Rose bul fàtte dafa dafa débuté rek indi slogan wu Tapha Gueye j'attaque je cogne et je gagne ñëpp ànd ceeg moom. mu ko daan def nag. mu daan ko def foo taxaw sa kaw la jëm bu tojee nen amul tànk ginnaaw ci sa rek la jëm. Mhm. ndaanaan boobu booy bëreeg moom mi ngi commencé dellusiwaat am na expérience su làmb bëri na fi tàkkusaan gu ne kooku booy bëreeg moom da nga ko a respecté a jox cër. alors wax nga léegi ci fils de balle mu bëreeg Lac Rose euh, combat boo xamante ni ñëpp nag dañ ko jox tort ni ko na mu bëree baaxul. Euh, fan yii dama koy dégg digganteem ak Gris 2 naka nga jàngatee combat waaw combat la bu jaadu. bu jaadu ndax moom jëloon na avance. Mhm. war a bëreeg soq. Mhm. sottiwul ñu ne staff dañ ko ne dafa jege mënoo bëre la vingt et un juillet. waa Alburaax ginnaaw ndax ndaanaan lañ ñu jël avance ba jox ko Mama Lamine. Mama Lamine mooy bëreeg soq. Mhm. ci tafaatin bi ak Balla Gaye 2. léegi nag moom ci plateau lañ ko woo ko loo xam ci Gris 2 mu ne pare na pour bëreek moom. ñi ngi xaar ba xam promoteur lan lay wax. Mhm. mais daal bu nu bëree combat bu neex lay doon. Mhm. Euh, wax nga itam beneen affiche ndax sànq ba léegi ay affiche rek nga fi wax xam naa dinañ dinañ ñëw ci euh, boo yi nga xamante ni tudd nga ko ci njëlbeen mais maam Mama Lamine Sokk combat boobu ndax nga ko jàngatee. non combat la bu am solo ci ñaari mbëri. ndax ñoom ñaar ñëpp soxla aussi. waa dañ ñaar ñëpp ko soxla. Mhm. combat la boo xam ne ki nga ci yërëm rek mooy ki daanu mais ay mbër la ñoo xam ne amateurs yi xam nañ leen. biñ ne Maama Lamine soq rek ñëpp dañ ne combat bu neex la euh, ñoom nag dañuy takku rek defaru ñëwaat ci course bi. Mhm. bu neex la ñuy waajal bés boobu. Mhm. incha allah alors euh, du ñàkk ni itam polémique bi nga xamante ni am na. autour euh, du titre des rois des arènes ndax Aziz Ndiaye ci combat bi nga xamante ni tëgg na ko mu dox ci diggante Tapha Tine ak Balla Gaye moom nee na nag empereur ku daan yaay empereur empereur des arènes bien vrai que nag am nañu roi des arènes war na bëreeg Siteu dina ci ñëw. Ah, loolu dama ne woon du ma ci waxaat sax ndax tontu woon naa ci. Mhm. la ma ca tontu woon. mais benn tontu laay wax rek benn roi des arènes moom benn titre la ñuy jongante bi ci des nit ku ci ne am nga droit nga créer sa tiitre bopp. tuddee ko empereur nee na chaque fin du mois ki ko jël un an dina ko wital salaire loolu lu baax la te man yéene naa yëpp xaalis mais daal li nga xamante ni moo wér ñu xam ko. nga xam ne loolu moo jiitu CNG bii fi ne ci Manga 2 la woon doon roi des arènes ñu di ko topp Tyson Yékini Bombardier deux fois Balla Gaye 2 Eumeu Sène ba ci Modou ëpp na 30 ans boobu mooy titre roi des arènes moom la ñu war a jo joŋante mook Siteu ci mois de novembre leneen lu waay organisé nag baax na loo xëy yokk làmb la mais euh, du loo amateur yi xaar. Mhm. danañ xaar combat bi. mais titre moom benn titre am. da nga jàpp ni dafa pour pour jaay combat bi rek moo tax mu wax loolu. ah am na ci droit xam nga loolu am na ci droit mais li wértoor daal Modou Lo fàtte ne ñaari yoon la ñafe dafa njëkk a bi mu njëkk a bëree titre roi des arènes. Mhm. am na ñu ne sax corps production la defoon ak max suba teel bëreeg bombardier pour bëre combat royal bëre ca bombardier daan ko mu continuer ñëwaat ci course bi ba ni mu daanee Eumeu Sène daan Ama Baldé daan Boy Niang. kooku boo ne da ngay créer leneen euh, ay mbokkam duñ ko rafetlu waa amateur làmb it am na ci ñoo xamante ni duñ ci ànd. Mhm. kon li wértéo daal mooy kii teg am na lu muy def luy lu muy yokk la mbër mu ko gañee dina baax ci yow Tapha Tine ak ak Balla Gaye mais benn titre moo am ci làmp ci muy titre roi des arènes. Mhm. boo xam ne kenn mënu koo contesté boo ko contesté it c'est la majorité qui l'emporte mbooloo mi duñ ci ànd ak yow. Mhm. waaw parce dañ naan ko def pour pour saboter mais kenn du ci ànd. Mhm. ginnaaw sa sortie aussi eh, gis nañu Siteu tontu ko euh, naka nga jàngatee tontu Siteu bi. waaw non tontu bi tontu na xëy na dafa sës wax mais ñun bul tontu lañ ko waxoon pour dire vrai. donc jaru ko woon. jaru ko woon demal nga entraîné ji nga bàyyi ñun dinañ wax waaw. Mhm. mais xëy na dafa sës te xalaat naa dootoo ko dégg ci tontu lu dul ñoom face à face mu wax ci Modou Lo mais dootu wax ci structure alburaax déedéet. Mhm. sant ñu ko loolu ñun. Mhm. am na solo bu ñu ñëwee ci euh, premier combat bi ñu wax léegi mu dox ci diggante Balla Gaye ak tafaatin euh, Tine indi état de forme boo xamante ni sénégalais yëpp nag dañ ni Balla fu muy jaar Tapha donc mu nekk combat boo xamante ni euh, combat revanche la mais Balla itam soxla na victoire bu baax a baax. waa xam nga ñoom dañuy kii rek ci diw lii la indi lii la indi mais Balla Gaye te ku ne xam moom làmb da ko soxla comme ni mu soxlaa tafaatin di yaakaari géejawaay jóge ci defet diggam ak booy ñaa coow li bëri ñu ne Balla mënta doonaat Balla bii nag mu jël ay risques yu bëri dem witi doole ëppante doole bi yaa ngi koy xam ci bu ñu sumee ko ñoom ñaar mais tafaatin daal indi na état boo xamante ne ni impressionné nañu bëree bëri ñëpp dañ ne moo ëpp doole mais Balla Gaye de bo bu entraîné teg ko ci yoon neexut ëpp doole te mën naa bëre. mais état état tafatin bi. ah non non damay ñëw xam nga moom wane na boppam. Mhm. kee dem na di ji ci te làmb ji des na. dafa indi na état bu mucc ayib mais Balla Gaye de nee na ko bëreeg yow daf may neex ndax day tax lu mu ñàkkoon dama koy dem witi kon kooku xam na li ko mën a génne ci combat bi ndax tafatin booy bëreeg moom foog nga pare mën a bëre daa mën a xeex te du bàyyi dara te soxor na. kooku booy bëreeg moom boo parewul doo ko mën a contrôler te Balla Gaye da xam na loolu lépp ndax ne na ko yow su may bëree yow dafa may neex ndax day tax lu ma ñàkkoon dama koy witi mm-hmm. léegi nag diwa gën a pare wala diwa ëpp doole kooku da ngay xaar ba bés ba rek bañ ku nga xool ñaari mbër yi mm-hmm. wala ñu jàppante mm-hmm. loolu alors boo ñu doom defal pronostic Balla gay Tapha non ça dépend xam nga ñaari ndaanaan lañu xamante nañ Balla day day ñëw bëgg a daanaat ko Tapha Tine dafa bëgg a fayu Tapha dafa bëgg a ndax nee na ko le nam demee la mais maa la mën fuuf kii ne ko da wax rek lawoon laa lay defaat mais ñaari mbër la yoo xamante ni wane nañ seen bopp ci làmb ji jaar nañ kalaaf ku ci ne bëre nga ba yegg si fii ñu yegg si. Mhm. combat la yu am solo. am am na solo. Mhm. alors Lansar am un combat royal. Euh, daanaka écurie yu bëree bari bëri euh, bu ñu sañoon am un combat actuellement Siteu war a bëreeg Modou Euh, bu njëkk ba nag dañ doon wax Siteu du bëreeg Modou Lô polémique am ba combat bi mujj taxaw est-ce que euh, bara ñoo ñëw ci vif du combat euh, polémique boobu noonu amul lenn loo xamante ni dina ko handicapé pour sita non bu amoon du du du duñ kon duñ ci dugg ñaari mbër yëpp commencé nañ di waxtaan di wax ku ne di sànni xeer Siteu nee na ko maa la man ale maa la man retour buñ tegoon paquetu mbiskit doo ci lekk benn doom Modou Lô ne nañ ko wax ji lu muy bëri bëri. wax ji lu muy gën a bëri rek combat bi di gën a métti ci yow kon moo lay wane ñaari jàmbaar lañu te dañuy daje te ñoom ñaar li ñu wane ci làmb ji fi jaar seen parcours. Mhm. Euh, kuy xalaat naan komba bi du neex ak non loolu jeex na ba ñu avance bu ñëwee ci bi jour làmb ji ku man sa morom duma. Mhm. Mhm. fort ak faiblesse su Modou Lo euh, waa Lansar xam nañ ko. ah non xam nga Modou loo xam nañ ko làmb ji xam na ko. ndax mhm. bi muy débuté Modou la tudd xarañ gi da koo dab wane boppam baag fi mu yegg si kooku du lamsaar yëpp Modou Lo ñëpp ko nangul. Mhm. mais dafa xaw a niroo. xam ngeen ki ngeen di bëri laa bëgg baax lañ ko xam. xam nañ ko bu moo tax ma ne la ñëpp Modou booy bëri moom da pare mën naa bëri mën naa xeex ñeme na. làmb nag foofu la yem. Mhm. Siteu lan mooy avantage am ci combat bi. avantage bi mu am mooy wane preuve am. man Siteu boobu bi ba mu bëreeg Zarko ñi nit ñi dañuy wax sax la daggee ak euh, ak waaye man temps ba mu bëreeg Zarko ba daan ko booba laa xam ne Siteu mën naa bëreeg mbër yëpp. Mhm. ndax Zarko neexut a tenir. neexut a tenir neexut a tenir. Mhm. kooku ko mën a tenir ba am ndam ci moom koo mënta bëreeg amul nit ñi nag ñoo xamul rek te xalaat naa ne le jour ji buñ ci yegsee dinañ si benn Siteu. Mhm. ñu am beneen affiche bu dox ci diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux mel ni Gris itam soxla na ndam mais Ama euh, bu ñu bu ma juumalee tuuti euh, gë bu fekkee gënta soxla ndam sax Gris Bordeaux. waa ndam moom ku ne koy witi boo ne diwa gën a soxla. Mhm. keneen ka nga tuddul noon na laa mere. Mhm. mais li nga njëkkee rek ñoom ñaar ñëpp soxla nañ ndam. Gris bëgg a ndam ndax moom gëj naa am victoire su ma ci Tyson. waaye teewul ay kombaam dafay neex amateur yi dañ ñëw ndax Gris day xeex day bëre waaw combat yu métti lay bëri ndax du négocier combat Ama nag daf ne woon dafa juddu pour doon roi des arènes bëreeg Modou Lo bi dem quatre ans am ñu ne blessure la bëre waale tey ak lu mënti am Gris moom ak Modou Lo mais Modou moom ak Ama kon bu la boo la Modou Lo daanee Ama Gris daan la waa ni dootuñ la nangul. Mhm. moo tax Ama pression bi bëri ci moom. comme ni nga ko waxee rek ñaar la ñu bëgg ndam combat bi ñoom ñaar ñee ko bëgg bëgg yàggatul dara ndax la 30 juin la. Mhm. est-ce que euh, xeexu xeexu Gris Bordeaux Ama mën na koo dékku. mën na koo dékku ndax Ama mbëri mën a xeex yëpp affronté na leen. Mhm. ndax Modou kenn daax koo xeex. tafaatin kenn daax koo xeex. Malick Niang kenn daax koo xeex. alors avantage avantage yu Gris Bordeaux ci combat bi moom lan la. non jël làmb ji jox ko rek. xale moom booy bëre da ngay jël. pour ana ama diriger. non non gérer boppam yow man def naa li may def dama lay bàyyi rek foo juumee ma exploité ko. Mhm. Euh, dégg nga itam Eumeu Sène ci ab plateau boo xamante ni moom pare na pour jox booy chance. waaw xam nga jamono ji tendance la. waa dégg naa booy benn booy Serigne Ndiaye nee na wax na ko mais na ko jëfee nee na bu dee pour moom la moom Serigne Ndiaye de nee na buñ ko sax fay. waaw lañ ko war a jox de nañ ko dollil Eumeu Sène ndax day kontaan ci combat boobu euh, bu euh, Eumeu Sène nag comprendre na loolu làmb ñetti génération la dangay ngay say mag. bëreeg say morom bëreek say rak. Mhm. kon moom xam na loolu. et beneen bi nii nit ki xëyee di liggéey mais yow noonu ngay xëyee dem entraînement soo entraîné te bëreewoo. làmbay sa métier kon jeex na looloo tax nag. Mhm. te dimanche boo toog bëreewoo ko yaa ngi perte samedi boo toog bëreewoo ko yaa ngi perte ndax làmb problème mu temps la at la fi xaar doole la fi xaar. Mhm. beneen combat boo xamante ni euh, amaana amateur yi euh, bëgg nañ ko mais déggaguñ ko ni mu waree. mu dox ci diggante Boy ñaa ak Reug Reug ku ci nekk yaa ngi waajal sa bopp mais est-ce que euh, chance su Boy Niang ci combat bi bari na parce que dama ko dégg mu communiquer ci noo xamante ni bokk ñu ci bëri d'accord uñ ko mooy Reug Reug moo ma gën moo ëpp doole moom ma gën a féete xale yi. waaw loolu dañ ko loolu waxu mbër la. Hmm. bu gëmoon loolu du jël avance bi. mais combat bi ginnaaw ba ñëwagul des na. janvier ba la di ñëw. xam naa daal li ma ci mën a tënk rek combat boo xam ne ñoom ñaar ñëpp bëgg nañ ko ndax mu booy mi wax loolu nee na bu ko kenn conseillé combat am la. diggante ak rëg rëg waaw am na lu mu bëgg a wane. rëg rëg di ndaanaan boo xamante ne moom tamit nag nga fekk booy ñaam boole kook Ama Baldé ku ne nga jël avance am pare bàyyi leen fi dem di combattre MMA. moom gëm na ne combattant la te gëm na ne ñooñu ñëpp moo leen man moom loolu la gëm. Boy Niang nag nee na combat bu ko kenn conseillé ndax combat la dafa am lu mu lu mu war a wane. mais daal xam naa bu ñu cee yóbboo ginnaaw ba ñëwagul yooyu moom waxtaan ci du mën a sori ndax ndax saison bële di ñëw lay doon. Mhm. mais bu ñu ca yeggee daal combat neex lay doon. Mhm. Mhm. alors yaa ngi ko ci njëlbeen bëri na ay phénomènes yoo xamante ni actuellement ci làmb génn nañu. à l'image de Pokola Liss Ndiago ak ñeneen ak ñeneen euh, Diop 2 ak ñi nga xamante ni mobilisation exceptionnelle la ñuy def ci làmb. waaw ñooñu damay résumer parce que. dama ah. continuer ci yooyu. allez wax effectivement ñu résumer ko rek. mais làmb moom na génération prince mi nga mi ma wax léegi bi may ubbi ci la Pokola ci la euh, kii ci la euh, Liss njaago ci la Diop 2 ci la Siteu bu Ngor fëgala bu Ngor dañoo bëri te koo limul mu ne Père tudd ma. Mhm. mais daal bëri na ñoo xamante ne mais benn bi moom xam naa ne moo ci defal analyse rek. non non li tax mobilisation am solo. effectivement. Euh, day tax nga doon bëru promoteur daanak daanoo ci am da ngay mais boo dul indi mbooloo boo mënee ci làmb ji say combat du bëri. ndax làmb affaire business la. affaire business la looloo tax nag koñ bi bu ñu la bëggee jàppale nañuy mobiliser di ñëw ci say bés. boo dee indi mbooloo promoteurs yi dañ ñaw na mais mbooloo mais kuñ topp daan avantage la mais boo daanuwul it da ngay bëree ndax ko indi mbooloo combat du la jafe. boo dul mobiliser combat boo dee mobiliser combat du la jafe. à tout moment da ngay bëre. guy gi Ada Fass. waaw combat la boo xamante ne nii combat bu am solo ñaari mbëri bëgg ko lool. ndax li ci doy mooy am na ay mbër yu bëre ba noppi toog di xaar ku ci ne ne yaa ngi xaar vainqueuru combat boobu. Mm-hmm. moo tax kombaa bi am solo. Mm-hmm. Gris gis nañ ko mi ngi ci état bu mucc ayib ndax combat mag rëg-rëg dañ ne blessure la bëre waale ci tànk dañ ne da doon entraîné bi dal ci tànk yi kon looloo tax mënta yàq combat bi mu bëre si. Mm-hmm. te nee dafa jël Ada Fass te nee ko même bu ma la daanee du ma ndax man waruma bëre ak yow. kon am na lu mu bëgg a wane fonk na combat bi. Euh, aada ne ko da ngeen di su mais yéen ñëpp ci lim bi ngeen ni bokk. te yéen mu leen maa dem aada am na lu mu gëm ndax bu jógee ndakaaru moom it am réew koy topp. komba la boo xamante ne nii komba bu neex lay doon te ci la 30 bi lay doon. Mhm. moo tax la trent xam naa ne ku yéex. doo am photo doo am photo da nga gis mbooloo mu bëree bëri. Mhm. ndax it Liss Ndiago ci lay bari ak Zos. Mhm. jour euh, journée la bu mucc ayib. père lu waral booy ku ci jug laaj waaw mais loolu yàgg na ci làmb. Zos mhm. bëri na ak champion bu ne. da lay may chance voilà. waaw noonu lay demee soo ko daanee da yóbbu ci kaw loolu mooy làmb. daanee sa palmarès da nga boole bëri na ak diw ndax kooku. moo la jiitu ci làmb nga daan reewe def lim def tey nga dem ba bokk ak moom ngeen di bëre. Mhm. looloo tax mbër yi soxla ko. Mhm. mais gis naa combat bi it mi ngi rey boppam. Mhm. mais li si mbër la moo xamante ni moom it yaakaari gox la bu jógee jàmm gan koy topp. am na solo alors ñu jeexalee euh, par rapport ak euh, ni làmb di euh, dekkewaat gisoon nañu en moment aussi situation bi nga xamante ni làmb nekkoon na ci ñu ci bëri jàppoon ni pay yi moo ko rawoon. waaw mais loolu ñii ñi ko tàmm nag mooy ñi tàmm toog ci tele bi rek di seetaan duñ dem stade. mais promoteurs yi nga xam ne ñooy bailleurs yi làmb affaire business la. amoo sponsor yu la accompagner te billet fayul làmb kon pay per view boo ko boo ko deful da ngay dangay ngay da ngay da ngay perte moo wàññi woon direct yi ak événement yu mag yi gëj a am mais retouru alburaax bi ak waa jàmbaar. ak Gaston ak Makan Gaston production. Mm-hmm. moo am événement yu mag yi moo tax làmb ji melaat nii ndax combat yu mag yi dafa am solo parce que combat yu ndaw yi amateurs yi dinañ seetaane mais ñiy dund làmb. Mm-hmm. ñoom seen yoon nekku ci combat yu siiw yi rek la ñuy xam ne kat làmb am na dimanche jot ngeen dajaloo benn kër añ fa seen añ bu baax toog seetaan làmb. yooyu nag dafa bëri saison bii. ba combat yu bari yu taxaw yoo xam ne ña nga jëm saison prochaine loolu tax làmb ji dekkiwaat ba mel nii mu mel. Mhm. Mhm. jërëjëf am na solo amoon mbégte euh, dalal la ci M4 TV nga jox ñu daanaka analyse yoo xamante ni euh, loolu lañ doon xaaree ci yow ndax wax naa ko ci njëlbeen euh, ku xam-xamam nga wàcc màcc ci wàll wi nga xamante ni moom la ñu nekk daanaka ci làmb moom sa tur amul fenn fu ñu koy tuddee ñu naan acam di la jaajëfal ci kóolute bi ak déplacement bi ak disponibilité bi nga xamante ni euh, am nga ko ba ñu wuyu si ñu. waa di euh, kontaan ci yow rek ndax gis naa ne macha allah ku dégg ni ngay waxee question yi moo wane yaa ngi topp làmb ci nit nag booy wax dara ñu dénk la ko dang ciy jéem a am xam-xam te léegi nag. loo jéem a am xam-xam ci yow la ndax am na loo ne boo ko tàppee loo bëgg a xam da nga koy xam ndax technologie bi xew. Mm-hmm. mais gis naa ne macha allah actualité lamb jaa ngi koy topp di kontaan ci yow. Mm-hmm. sa liggéey am na solo. jërëjëf di ñaan rek lu ci rafet borom bi la lu ci ñaaw jàmm bu xeebu. Mm-hmm. yal na yàlla def ci réew mi jàmm. jërëjëf naa la boole moom mu ñëwal. baax yaa day na xaw a niroo sax naa la woon photo day na ah, xaw niroo. mais ñu ngi leen di ziar di kontaan ci <laughs> sa fils bi lu mu filmé wul baaxul maa ko. <laughs> Lamine moo fi nekk Lamine kontaan naa ci yow merci beaucoup chers internautes Lamine jaajëfal la.